la bienvenue, le bienvenu dans la terre de la Casamance. Président Diomaye. Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui vient de fouler le sol de Cap Skirring, la Casamance qui accueille l'un de ses fils. Ah ouais, bien sûr. da ko nuyu rek. Le nouveau name ñu ngi noonu président Ousmane Sonko qui foule le sol de la Casamance qui revient après le blocus de Ziguinchor. Le président Ousmane Sonko qui revient à Casamance aujourd'hui ki nga xamante ni moom moo di ki président mi président président mi ngi président heureux de revenir en Casamance très heureux après le mois de mai Kalau anak minum.

président laa bëgg posé ko directement li mu donc président laa bëgg posé ko directement ci waa Casamance li mu toll nii yaa ngi ñëw président loolu la. non verre moom loolu bëgg moom. daal bu génnee bu génnee nga yéex laaj ko non verre bu leen yàq. Thank you. une semaine moo des une semaine une semaine kese Dauer der Mutter Geld. Rose, ben sana ilerledim. Hav, hav, hav, hav, hav. Hav, hav, hav. mi ngi noonu le président Ousmane Sonko qui revient à Ziguinchor depuis le mois de mai. Le président Ousmane Sonko qui revient sur sa terre natale, la terre de la Casamance, la des dignes, la Casamance de la liberté, la Casamance du Sénégal. Après le mois de mai, mois de mai 2023, un mois tout chaud avec le de Ziguinchor qu'on a vécu le président Ousmane Sonko. Aujourd'hui, en faiseur de loi, en faiseur de roi, le président Ousmane Sonko, l'homme qui a choisi Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du président Ousmane Sonko. ki nga xamante ni moom moo di président Ousmane Sonko mi ngi noonu dellu si fii nga xamante ni moom moo di eh, ci suufu maamam fii nga xamante ni moom moo di Casamance bi mu bokk Casamance gi nga xamante ni moom mooy te wu Sénégal yëpp Casamance a ngi taxaw tey fépp foo jaar ci Casamance ñi ngi taxaw di xaar président Ousmane Sonko balaa loolu caravan convoi bi jóge woon Dakar romb na Banjul romb na romb na Gambie romb na euh, Fatick romb na Kaolack romb na fépp fu mu romb c'est des plus d'ovation nit ñi di taj bu baax a baax di béggee ki nga xamante ni moom moo di président Ousmane Sonko avec son candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye le futur président incha allah du Brésil de la République euh, du Sénégal tey ñoom ñu ngi nii soog a atterrir ci un vol spécial transfert avec l'ensemble du staff de la campagne le directoire de campagne ak si fii nga xamante ni moom moo di Cap Skirring bu ñu nee Cap Skirring diggante Cap Skirring ak fi nga xamante ni moom moo di euh, Ziguinchor ville bi nga xamante ni président Ousmane moom moo nekk le maire il y a soixante dix kilomètres donc soixante dix kilomètres quatre départements à franchir li nga xamante ni moom moo di Ziguinchor aujourd'hui vous allez vivre euh, un événement unique un boo xamante ni mësta am ci histoire u àdduna mësta am dans cette belle contrée la Casamance ñu di Casamance gu naat gi pas Casamance gu rafet gi Casamance ñu baax ñi Casamance ñu gore ñi tey ngeen gis loo xamante ni mësul leen koo gis ndax askan bi ñu ngi leen romb fu nekk de Ziguinchor à Cap Skirring en passant par Oussouye Bignona aussi en traversant la frontière de Sénoba à Bignona les gens sont prêts à accueillir le fils du pays l'enfant du pays le président Ousmane Sonko boo xamante ni tey mi ngi ñëw ànd ak doomu ndeyam mu ñëw ànd ak ki nga xamante ni moom la choisir moom la tànnal boppam mu jox ko li nga xamante ni moom moo di projet PASTEF mu ni ko demal yow laa wóolu yaay sama doomu ndey yow laa wóolu yaa am yow laa wóolu ndax waaye yàlla yow laa woolu ndax euh, sacrifice bu nekk def nga ko jëmale ko ci man jëmale ko ci projet bi mu di Bassirou Diomaye Diakhar euh, Faye ñu ngi nii di génn aéroport bu Cap Skirring nit ñaa ngi commencé yuuxu président Ousmane Sonko mi ngi dellu si waat Casamance Casamance gi mu bokk Casamance maamam Casamance bi mu ay ndamoo war a dem Ziguinchor programme bi nag dañuy def li nga xamante ni moom moo di Cap def caravane dem Oussouye dem Bignona sooga dem Goudomp dellu si waat Goudomp seet yi Olivier Boucal bi nga xamante ni def na ay weeri weeru prison ndax li muy jàppale président Ousmane Sonko li ñu jógee Goudomp Goudomp itam mooy Goudomp bu Papa Diémé ku nekk Pastef xam nga Papa Diémé mu di ndaw goo xamante ne président Ousmane Sonko bëggoon ko lool te mu mujj euh, euh, yàlla mujj jël bakkanam euh, mat na tey ñaari at ñooñu tey ñëpp président Ousmane Sonko bëgg na dem foofu saafonteeg seen njaboot saafonteeg waa Casamance ci cadre bi nga xamante ne moom moo di la caravane bi nga xamante ne moom moo nekk fii nii la caravane de la liberté président Ousmane Sonko moom moo ko lancé woon bi muy jóge Ziguinchor di ñëw Dakar en passant par Kolda en passant par Vélingara avec la fameuse manœuvre de Kabendou avec la sécurité rapprochée du président Ousmane Sonko jékki-jékki tel un phénix yu feeñ nga xamante ne moo di euh, euh, Vélingara tey la caravane de la liberté est partie de Ziguinchor aujourd'hui la caravane de la liberté part ou bien a atterri à l'aéroport de Kaskering pour s'ébranler dans la verte Casamance. Mais aujourd'hui, c'est non seulement une caravane de la liberté, mais c'est sûr et certain, c'est la caravane de la victoire de la coalition Diomaye Président avec le candidat président euh, du Sénégal euh, ki nga xamante ne moom moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu di nit boo xamante ne mësta ragal te xamul luy ragal ndaxte ñu bëri ñu ngi laaj ci lan mooy Diakhar te ci séeréer mooy nit boo xamante ne xamoo luy ragal ku mësta ragal ku koo xamante ne foo natt fit bi rek àddina foofu loolu kooku mooy ki nga xamante ne moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye te mu wone ko lool koo xamante ne jàpp nañ ko tëj nañ ko ci ay weeri weer mu subir injustice dignement waaye dafa xeex ba génn ci li mu nekk waaye dafa xeex ba ñu tëj ko prison waaye dafa xeex ba tey mu taxaw nii président Ousmane Sonko tànn ko tànn ko mu ne ko yow yaay àggale projet bi ndax ñun du nit moo ñu amal solo projet moo ñu amal solo waaye nit bu nekk boo noo mënti def il faut nga am noo bindoo dafa am noo mel nga am yenn valeur et Bassirou Diomaye Diakhar Faye am na valeur yooyu président Ousmane Sonko tànnal ñu ko mu naka nekk président de la République du Sénégal incha allah ci lu yàggatul dara dara. ñu ngi noonu nguy waa Ziguinchor a ngi noonu waa GPS Ziguinchor comme je vous ai dit c'est quelque chose d'inédit moom la ñuy moom la ñuy waajal